benn tubaab bu xonq cur ñëw ànd ak ay sénégalais ñëw dugg ci sunuy réseau yàq sunuy matériel du ma wax saisir sunuy matériel mais yàq sunuy matériel parce que bala ngaa saisir matériel jàmbur yaakaar naa ne justice moo koy décider juge moo war a décider ni dem leen saisir ma tel bagage ñu dem saisir bagage yi mais li ñu gis tey ci Thiès li ñu gis tey ci Sénégal tey mën nañ ko qualifier que ni lii c'est du grand banditisme moo am tey ci Thiès parce que ay nit dem recruter ay nervi ay mbër la ñu indi ay mbër ay gros bras indi leen ñu yore ay marto cinq kilos dugg ci réseau yi ak seeni i pince ak ay pince coupante dagg suñuy toutes les fils voilà beneen bi mooy ñoon dañu am convention ak état du Sénégal dañoo am cahier de charge bu ñuy respecté ñun beneen bi mooy chaîne yi ñuy joxe à part bin yi nga xam ni ñoom moom la ñuy réclamer si Africa moo ñu jox bin yi contrat bi ñu am ak si Africa mi ngi nii ñoom Canal Horizon attaqué nañu nos amis câblo yi nekk Saint-Louis récemment ci période coupe du monde bi en l'occurrence monsieur Isaaxa Ba ak le responsable de Péritel TV mi ngi nii dañ leen ba ñu demee tribunal dañ leen a dañ leen a décision baa ngi nii donc ñoom amuñu lu ñuy ñëw fii di ko def à Thiès ñun nag ay jeunes lañu yi nekk Thiès nekk Sénégal di liggéey honnêtement depuis que ñun ñu dugg ci affaire câble distributeur musuñu laal yëfu Canal Horizon Canal Horizon au contraire moom mooy pirate kat bu mag bi parce que moom moo doon jël yenn câble yi di leen defal de factures de piratage en vingt quatre heures Canal Horizon mi ngi à Thiès su génnul Thiès su fi laalaatee beneen réseau fépp fu ñu bind Canal Horizon ci Sénégal laa ñun danañ